asalaamaaleykum waa Sénégal ak waa diaspora ñun société Diarra Mou Invest andil nañu suñu client yi nga xam ne dañuy faral di am jafe-jafe ndox service bu bees tàq ñu koy wax forage fépp fu ngeen mën a nekk ci Sénégal am nañu ay machines yu am doole yoo xam ne mën nañu leen gasal forage ci bépp xeetu suuf muy suuf bu nooy muy suuf boo xam ne dafa am ay xeer wala muy suuf boo xam ne dafa am argile am nañu ay machines yu ndaw wante am nañu ay machines yu mag yoo xam ne mën naa gas ba ñetti téeméeri mètre ci biir suuf am nañu ay jumtuwaay yu xarañ yoo xam ne ci la ñuy sukkandiku pour saytu suuf si balaa ñuy gas loolu dafay tax ñu mën a natt tolluwaayu nappe phréatique bi dina dina tax aussi ñu mën a xam ndax ndox bi am na xorom ndax ndox bi ndox bu neex la ñoo ngi woo képp ku nekk Sénégal ak foo mën a nekk nag yaa xam ndax danga bugg a tabax soxla ndox yaa xam ndax da nga am kër di am ay jafe-jafe ndox nga soxla autonomie yaa xam ndax da am tool installer le forage mën ngaa woote ci suñu numéro téléphone 00 221 77 157 20 48 wala nga envoyé ñu email ci suñu adresse contact diariemu investcom